on suñu leen gëm on sait que c'est un cercle vicieux et tout se trame dans un deal satanique ça nous on a fini de le comprendre donc sérieusement ñu xëy gis yu mel nii dafa mel ni tey jii xaj bi mbaw ci ñun c'est un non événement chez nous dara bettuñu ci dara bettuñu ci on l'avait dit même chat yi même chien euh, yi même va yi même vient yi même même dil yi même. du fen yeeg ngeen jéggal ma ci wax yeeg yooyu voilà quoi. mu mel ni l'histoire comme a donné raison. Mm-hmm. alors donc je pense que ni ne serait-ce que vous mettez ce ce, morceau. Mm pas de commentaire à faire là-dessus. Mm -hmm. mais kañ mm-hmm. li ma mooy lu xaj matt matt ba ba ca derba. xaj lu mu màtt màtt màtt war a ba ba ba je sais pas ndax olof yooyu nit ñi dinañ ko xam je m'explique au moment où ñu jóge ci ay événement crise yu bare bare bari dëkk bi di àdduna euh, bi di ko jànkonteel un pays pauvre comme le Sénégal di ko jànkonteel ci la suñu politiciens yi di gën a ñàkk yërmande ci suñu askan ci askan bi au moment où on, on te parle de 500 morts. yu ñu gis ci suñu ay jeunes. ci la suñu politiciens yi gën a ñàkk yërmande ki askan bi. au moment où ñu ñu ñu ñu nit ñi euh, jeunes yi désespéré. désespérément boo xamante ni c'est à l'extrême limite. ci la suñu politiciens yi di gën a combine di gën a xool nan lañ ñuy doggalee. moi je m'adresse à la population. ou au peuple sénégalais. Cette fois-ci, nous avons fini de comprendre, ou vous avez fini de réaliser et de comprendre que ces politiciens ne croient pas en nous. Alors, Kilifeu. li leen soxal li leen ñor du lenn lu dul comment faire pour dealer avec le contribuable sénégalais sur le dos des des de, de, de la basse classe. alors est-ce que est-ce que duñu wax kon que ne combat bi taxoon ngeen doon xeex ñu gis le 23 juin yi ni mu fi baree woon gis Mamadou Diop daanu fa nga xamante ne mooy place de l'Obélisque euh, combat yëpp dafa vent maanaam amul amul tey dara donc est-ce que jaroon na ko. Euh, tey la ko gën a jar nag sax. Hmm. tey la ko gën a jar. Hmm. parce que je pense que ni am na loo xamante ni euh, nous avons un acquis. Hmm. et l'acquis c'est quoi. damay rafraîchiraat la mémoire des Sénégalaises que ni. En 2012, en 2011, 2012, on ne combattait pas la personne d'Abdoulaye Wade, mmh. mais on combattait ce qu'il voulait faire, briguer un troisième mandat. Mmh. J'ai entendu tout à l'heure mon frère Bachir Diawara dire que maa ngi dégg léegi sama sama mbokk mi Bachir Diawara euh, wax ni lii bi ñu def pour waajal troisième mandat wu Macky Sall la waaye bu yeboo ñu xam ni ñoom sàcc yu dul raw lañ jaru ñoo yàqi nelaw. mais mais est-ce que loolu mën nañu ko mën nañu ko mën nañu ko nangu jamono ji nga xam ne yéen ngi woote ay manifestation yoo xam ne peut-être nit ñi duñu génn bëri na fi lu fi am ci ay jafe-jafe yoo xamante ne askan wi dafay mel na sax ñoru leen yokk courant bi jafe-jafe ndox mi mais préoccupation yi dafa bari te sénégalais yi euh, gisaguñu ñu wane ne bëgg nañu changement est-ce que loolu tiitalu leen que ne bu ngeen bëggaatee li amoon peut-être en 2011 2012 dina mën a yomb. en 2011 2012. Le peuple sénégalais avait empêché à Abdoulaye Wade de briguer un troisième mandat. dégguloo ma le la définite li désormais amul benn président de la République fii bu fi amati plus de deux mandats. ci Sénégal gi fii ci Sénégal gi. cette question on l'a déjà réglée. bu ñu perte seen temps. vous pensez. li ma lay wax nii. li ma lay wax nii. daf ma leer nanj nanj nanj ni midi. Mhm. lépp était mille fois plus puissant que Macky Sall. Ablaye Wade au moins mën nga ne defal na lii Sénégal defal na lii Sénégal defal na lii Sénégal mhm. tey jii Macky Sall mënuloo ko waxal dara lu mu defalul Sénégal au contraire mhm. Sénégal moo def ci moom Sénégal moo def ci moom mu wëlbatiku di tooxal sénégalais yi mhm. kon lu ñu mayul Abdoulaye Wade du ñu ko may Macky Sall loolu moom c'est ma position et je suis clair là-dessus. mais est-ce que contexte yi bokk na kilifa. contexte yi tey la tey la waalo gën a aay. Uh-huh. xam nga j'ai entendu dégg naa léegi Fatou Abdou ne. Euh, pour mobiliser des fois, c'est un problème. Quand même. 2011, 2012, on avait 11 mois avec Abdoulaye Wade. Mm -hmm. Avec Macky Sall, bref, 2012, carrément, nous avons sur une position. Mm -hmm. Donc, c'était pour encore 7 ans. -hmm. Donc, endurance, la woon. fi mu ne nii nag dañuy dem ci benn tournant boo xamante ni tournant décisif la. muy 2024 bi ñuy jëm. di nga gis lu raw la nga gisoon 2011 te li ma lay wax dama ko xam. dama ko xam bu baax a baax a baax a baax a baax. parce que euh, ñoo xamante ni tey jii gisatuñu dara lu dul. situation da nga yaakaar ni dafay sampaat ndëndam le président Macky Sall. Euh, yaakaaruma ko parce que loolu man dama ne gëmu gëw gëwuma ko te duma ko gëm. ah kon da ngeen di daas fanaanam. non sax euh, dañuy artu. da ngeen bés bu ko buggee wala bu fekkee lu muy waaja a bugg la wala luñ lu ko ay njañam di di di ko jéem a dugal bu mu ci jéem a dugg ah. bés bu ci duggee dina gis lu ko lu ko lu ko jaaxal sax ñu bëri ñu ngi ñu ngi wax ne euh, amul benn problème le président Macky Sall briguer benn troisième mandat euh, physique bi may na ko ko euh, peut-être li mu fi defagum as néew may na ko ko am na sax yeneen ci ay juristes yu yu koy yuy bëgg wax ne affaire bi war na mën a nekk bon voilà quoi est-ce que tey aujourd'hui voilà mën ngeen tere loolu. man je dis que dara mayu ko ko. dara mayu ko ko waaw parce que gis nga. Euh, qui sont ces juristes yiy wax loolu. Mhm. yan juriste la aussi. Mm est-ce que ils sont crédibles. Mhm. est-ce que ñoom ñoo war a wax loolu. Mhm. gisuma lu ko ko may. buñ duggee ci côté physique dara mayu ko ko. buñ duggee ci côté moral éthique déontologie réalisation amul dara lu ko may Macky Sall. Mm. qu'est-ce que Macky Sall a pu réaliser depuis qu'il est au pouvoir. Mm. am na lu mu fi mu def nag. am na lu mu fi jotagum def jëlaat Sénégal jaayaat ko France jëlaat suñuy recherche jaayaat ko les les puissances. Mm-hmm. jëlaat ñu jaayaat France. Mm-hmm. tey dama yeewu ma gis. ci une bi ñu def woy Macky Sall à l'invitation de Macron mm. Macron invité wu ko mm. parce que koo nawloo ngay invité mm-hmm. Macron daf ko woolu mm-hmm. ko woolu daf ko woolu sa xarit wala koo koo koo def nawle kooku nga naan ko invité naa la tey mm-hmm. mais ki nga xamante ni yow yaay chef am da nga ko naan woolu naa la ñëwal nga rendre ma compte. Mhm. Covid bi dafa ñu sonal. d'accord te vous êtes euh, vous êtes notre vache laitière. Mhm. ñëw leen ñu xoolaat nan lañ leen di gën a pressé waatee. Mhm. nan la orange di yokkaatee gën a yokkaatee ay tarifam. d'accord nan la suñu société yi nekk foofu di leen gën a. ngaccaatee pour indil ñu ko ñu gérer suñu économie. parce que ñu ngi dee Covid baa ñuy rey. très loolu la koy doyee te bu ñibbisee vous allez voir. d'accord d'accord dinañ dinañ ñëwaat ci yow gën a gën a yaatal ak yow ñu ñëwaat ci Bachir ba léegi alors jàppoon ne Abdoulaye Wade de plus en plus isolé euh, loolu la ñu jàpp tey euh, ci bu ñu xamee ne euh, ses fils wala trahi par ses fils yi nga xamante entre guillemets Macky Sall Idrissa Seck Omar Sarr ñoom ñooñee bokk seen coalition alors Abdoulaye Wade dans tout ça est-ce que jàppoon ne PDS jamono ji mi ngi affaibliru par rapport ak surtout configuration politique bi jamono ji ci Sénégal. waa jërëjëf Mohamed xam nga. parti démocratique sénégalais dafa naan ñi nga xam ne xam nañu taarixu politique xam nañu histoire politique gu Sénégal. xam nañ ni parti boo xam ne dafa am ay particularités. c'est-à-dire que foofu dafa am une figure emblématique. boo xam ne référence lañ ko def. moom mooy ki nga xam ne mooy créer l'union sacrée de tous les militants et sympathisants autour de lui. képp koo xam ne jóge nga parti démocratique sénégalais ci ngoon gi. di nga yëg sa bopp ne. yow doo woon dara gannaaw ba nga jógee parti démocratique sénégalais loolu moom mooy réalité PDS. Mhm. parce que ay idéaux la ñun nous sommes des militants nous sommes des soldats du peuple. Mhm. lu ne jëm nañ ko wax ci presse bi opposition bi dañ ko fragiliser c'est faux l'opposition n'est pas fragilisée l'opposition est solide la vraie opposition est là ban opposition ngay wax ko le les ceux qui sont partis ce sont les de l'opposition hmm. ñooñu bu ñu demee mënuñu fell dara ci li nga xam ne mooy dynamique d'ensemble opposition rawatina bu parti démocratique sénégalais parce que li am solo ma terminer Fatou Abdou hmm. Hmm. moom mooy que ñi nga xam ne jóge nañu parti démocratique sénégalais dem wàll si Macky Sall dañ fee bàyyi militants yi yóbbuwuñu seen bopp dañ fee bàyyi militants tout à fait alors donc c' est une erreur grave. Mhm. que yenn presse yi xaw ma qu' est ce qui se passe. Mhm. ñoo leen di instrumentaliser ñu bëgg a gëmloo Sénégalais yi ne leen opposition bi dafa nërmeelu c' faux c' la raison pour laquelle d' ailleurs. Mhm. le parti démocratique sénégalais en tant que organisation politique. sentinelle de la démocratie et défenseur des principes. depuis 1974 même s' il y a eu des couacs. dafa décider mettre en place un large front commun. boo xam ne day regrouper toutes les forces vives. yi nga xam ne bokk nañu ay vision pour que ñu défendre li nga xam ne mooy les principes d'état de droit. mooy tontu xanaa li nga xam dinaa ci ñëw léegi est-ce que dina yomb. dinaa ci ñëw léegi am na ci ñoo xamante ne. alors peut-être euh, euh, nañu doxalin bu PDS est-ce que ñooñu tey dinañu ànd ak parti démocratique bu Sénégal sur pour une alliance électorale. yaakaar naa ni tey li ñu boole sax dafay bari au-delà de l'alliance électorale. xam nga sànq ñu ngi fiy wax mbiru troisième mhm. mhm. na ni sénégalais yi dañu am détermination à se battre jusqu'au sacrifice suprême pour que loolu du am mhm. jour bu jëlee yoonu ne day jël troisième mandat mhm. dana gis lu raw lu président Afrique gisul fii ci Sénégal kooku moom je vous le mhm. ñun parti démocrate sénégalais fësal nañ ko leeral nañ ko te liy firnde nii dafa bëgg a nekk euh, dafa bëgg def troisième mandat dangay ngay xool combinaison yi mu def ku mel ni Antoine Diome kooku c'est une erreur grave nga jël ko def ko ministre de l' intérieur. yow xam ne da nga nekkoon. adjoint procureur. dans un tribunal boo xam ne la loi est jugée scélérate. Hmm. décriée par toutes les organisations de droits de l'homme hmm. foo munti dem ci àdduna bi ñu ne la CREI bi baaxul. Hmm. moom moo tax ñu wax suñu communiqué que waruñu jël un juge un magistrat qui est aux ordres. di ko jëm a teg ci ministre de l' intérieur su fekkente ni nag. yéene bi mu am moom Macky Sall moom mooy Antoine Diome mi nga xam ne dafa bokkoon ci ñu xeex Karim Wade injustement. ak ñoom xalifa Sall ak yooyu ba génn leen ci jongante yi bu fekkee ne def ko yaakaar pour mu bloquer ko 2024. je pense que ñu ngi ubbi beneen pace ci Sénégal parce que nag léegi. coow li dafa jeex. c'est-à-dire Sénégal certes dafa am ay réalité nous un pays de paix. nous sommes un pays de dialogue. mais du ñu nangu suñu réew. Macky sàll ak ay nitam jël ko di ko salfaañee. Macky sàll moomul réew mi. njabootam moomul réew mi. ay nitam moomuñu réew mi réew mi dañ ko bokk ñun ñëpp du ñu nangu li ñuy wax. la gestion clanique benn groupe nekk fii di gérer affaire yi nu la neexee euh, di di di di di empiéter li nga xam ne moom mooy les principes de droit alors Bachir sànq par rapport à l'alliance électorale mhm. sax xëy na ci alliance électorale mhm. mais dañu toll ci ay alliance stratégique pour prendre en charge les questions fondamentales qui interpellent les Sénégalais les questions fondamentales qui interpellent notre économie notre justice notre éducation qui est aujourd'hui complètement déstructuré mais ak yeneen secteur d' de l' économie yoo xam ne bëgg nañ ko jël l' immigration clandestine vous avez vu le comportement arrogant de Macky Sall et de ses ouailles fan ngeen leen dégg ñu wax ci mbiru immigration clandestine yenn programme alternatif la ñu teg alors yooyu yëpp suñ ko boolee ak li ñuy wax les questions de droit maanaam processus électoral ñu jël ko def ko mu leer amatul ay beddi képp koo xam ne am nga sañ-sañ am nga àq ak yelleef yoo xam ne war nga mën a dem élection ñu baal nga dem élection mm-hmm. boole nañu ak ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo nekk ci société civile bi ci organisation politique yi nga xam ne gëm nañ seen bopp te nekk dans l'opposition ak même les organisations communautaires de mm-hmm. base. Ah, yaa ngi nag bëri lu ñuy wax. non non j'ai euh, parlé